mbokki Sénégal jigéen ñi bëgg lu baax bëgg style bëgg mode laa bëgg a waxal yéen ñi bëgg fu ngeen defaroo ba génn ñu validé daw leen gaaw seeti fas yéen Baye Collé Laye gérante ba di wóyoo ci turu Collé Laye madame bay nekkee ci VDN côté supermarché exclusif di yëngu ci lépp luy taaral jigéen ma ne mbokk yi produit greffage yi yéen a ko doon laaj cheveux naturel yu baax yu gudd yi yéen a ko doon laaj dama ne seen njàqare jeex na ndax Collé Laye da leen di defal leen kenn mënta defal bu ngeen bëggee escurely placage greffage wala ngeen seen i greffage ba

clôture nag mbokk yi moo ci teg loxo di ngeen fa fekk ay trois di ngeen fa fekk ay kim ak ay frontal lépp ngir dab seen bànneex longooru greffage yeeg périg yi nag mbokk yi am na ci li ko dalee ci 10 ba ci 42 bu dee da di bañ ku leen nax nag ci greffage ak ci périg ci mbooleem produit yi ñuy def ci greffage saa yu ngeen demee ci moom mën na leen a li gën ci yéen elle disponible ngeen mën ko woo ak Kolle laay madame Mbaye ku fi ñaaw Serigne ci yow kon nag fas yéen bàyyi ko lelaay ku ko seet si seet si sa njariñ. My baby got me for life, for saraax la def ci xew-xewu làmb tey fekkaat fa ña war a remplacer président Alioune Sarr président Alioune Sarr ma fi mandaam commencé woon depuis 1994 président Alioune Sarr mi fi toog ñaar fukki at ak juróom benn soppar ñi làmb defar làmb docteur Alioune Sarr président CNG bi fi defar làmb ba ku làmb daj moom mi mandaam war a jeex octobre waa ak lu làmb ku xëy ci moom ngay xëy mbooleem ku xëy ci làmb ci ordre du jour bi benn la mooy ana kan mooy remplacer Alioune Sarr ak kañ la fiy jógee ana monsieur le ministre Matar Ba lan lay xaar ci wax bu ñu xëyee dañuy joxoñ ay nit ba xam ndax ñooñee war nañoo mën a remplacer Alioune Sarr Sarr wala li ni mel moo waral sunu lamb xëy fësal juróom benn nit ku ci nekk ci ñoom mu am na taalam la muy def di laaj ba xam ndax mën naa remplacer président Alioune Sarr ña sunu lamb xëy fësal ca xët wu njëkk ba di laaj ba xam ndax mën nañoo remplacer Alioune Sarr mën nañ cee jàpp ku ci mel ni Tyson Maysa Ndiaye Cheikh Tidiane Ndiaye Babacar Diouf Djibril Seck ba ci Kéba bu dee Cheikh Tidiane Ndiaye moom moo fi nekkoon premier vice président chargé de professeur Djibril Seck ma fi nekkoon professeur foofee ca INSEPS expert mondial la ci sport ancien pratiquant la li mu xam ci sport rawatina ci làmb ak intelligence am war na ko mën a tax mu jiite bile CNG bu dee Maysa Ndiaye mooy fi mu toll nii président CRG bu Thiès moom Maysa Ndiaye sax bokk na ci ñi Aline Sarr doon wax naan làmb ji war naa mën a sukkandiku ci ñoom ba gën a mën a avancé xale la xam ne li muy def xam na fi mu jëm xam na fi mu war a mën a jëme làmb ji bu dee Babacar Diouf kookee mooy trésorier bu CNG mooy président commission règlement et de discipline xam ko ci dëggu xam ko ci bëgg lu baax dinaa mën a ci tànn moom le ministre ba mu déggee ñuy wax waxi remplacer président Alioune dafa réewi cax bopp ba daal di ne xanaa balaa ñoo wax waxi remplacer ñu wax ne kii dafiy jóge wala déet est-ce Ba maa leen wax ne Alioune Sarr jóge ba ngeen di wax waxi remplacer moom Matar Ba la mu xam mooy gaay li ñuy wax ci CNG beeg kay remplacer remplacer Alioune Sarr ak yooyu yépp seen waxi bopp la ñoom seen xelay xalam rek ñuy wax docteur Alioune samp fi boppam dañ ko fee samp ay mbiram ñun ñoo ci war a jël décision de paaka kenn du ko jiitu ci mbaram bu ñu jàllee ca Gris Bordeaux ci combat bi waroon a dox ci digganteem ak Balla Gaye 2 yàqu na anakat la ko làmb di booleel promoteur ba nu jàppoone moo yàq bile combat di waa Sénégal Entertainment Group génn nañ ba weddi li ni mel moom Mao Cissé xamle na ne woowoon na fi Gris Bordeaux di ko wax digganteem ak Balla Gaye 2 waaye loolu yàgg na def bu ñu jàllee ci écurie Boul Falé ci seen saison 2019 2020 dañ leen di fekk ñu def deux saisons zéro combat zéro victoire zéro défaite Mouhamed Ndao Tyson leader ba ba mu bàyyee dafa mel ni boobee ba commencé jël yoonu suux Valdo ma fi amoon combat ak Ahmed dem mujj koo bëre Gambien le scorpion moom kenn gisu ko kenn déggu ko yeneen gone yu ndaw ya nekk ca bile écurie kenn gisu leen kenn déggu leen bu dee seen coach ba Elas leen jox dig daje ba ëllëg incha allah. mbokki Sénégal jigéen ñi bëgg lu baax bëgg style bëgg mode laa bëgg a waxal yéen ñi bëgg fu ngeen defaroo ba génn ñu validé daw leen gaaw seeti fas yéen bay Kolelay gérante ba di woy ci turu Kolelay madame Mbaye nekkee ci VDN côté supermarché exclusif di yëngu ci lépp luy taaral jigéen ma ne mbokk yi produit greffage yi yéen a ko doon laaj cheveux naturel yu baax yu gudd yi yéen a ko doon laaj dama ne seen njàqare jeex na ndax Kolelay la leen di defal leen kenn mënta defal bu ngeen bëggee escrit placage ngeen bëgg sérum yi nuy traité seen i greffage bu mu rafet ngeen bëgg ay steam pot defar seen i greffage bu ngeen yegsee ci fas yéen bàyyi ko lelaay seen xol set bu dee yéen yor seen greffage bopp bëgg koy steam daw si leen gaaw da koy defal ci njëg yu xéewal te bu ko jàppee ba bàyyi ko ngeen jàpp lu bees la bu dee da ngeen a bëgg greffage nag xeet bu mën di nekk greffage red frisé ba ci semi ondulé original bi ngeen fii fekk ngeen bëgg ay accessoire ngir defar seen i wàllu clôture nag mbokk yi moo ci teg loxo di fa fekk ay trois di fa fekk ay kim ak ay frontal lépp ngir dab seen i bànneex longooru greffage ak perruque yi nag mbokk yi am na ci li ko dalee ci 10 ba ci 42 bu dee da di bañ ku leen nax nag ci greffage ak ci perruque ci mbooleem produit yi ñuy def ci greffage saa yu ngeen demee ci moom mën na leen a li gën ci yéen elle disponible ngeen mën ko woo ci 77 973 49 13 ak ku fi ñaaw greffage rek ci yow kon nag fas yéen bàyyi ko lelaay ku ko seet si seet baby got me for